waaw li ma lay expliquer nak histoire réelle la dafa am benn dof boo xamante ne maa ñoo dëkk dof bi euh, wax dëgg yàlla dof la ci xel ndax dafa romb xale bu jigéen moo tax gis nga àdduna boo ci nekkee sa doom bu jigéen jàngal ko nu ñuy toogee xale bu jigéen bu da nga koy jàngal nu ñuy toogee jàngal ko nu ñuy tëddee jàngal ko lu bëree bëri ndax jigéen léppam awra la dof bi dafa romb xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi mu ngi toog ubbi tànk yi nii wax dëgg yàlla sàgganu na mu toogee dafa sàgganu dof bi romb ko xool di ko xool ba ci yàgg fixé ko ndax xelam ak bëtam yëpp mu ngi ci awray xale bu jigéen bi te xale la ndeysaan xamul dara dof bi di xool awra bi di ko xool ba mu yàgg mu ne lii bu magam ak and Cook. Marimba en Co. Zo nice. Vaal en Co. Bees, bees, bees, bees en Co. Ak nan, dan Vaal en Co. Bugulu nice en Co. Zo nice. Vaal en Co. Ik wil baaga baaga wachtje en Co. Vaal en Co. En Co. Yaa ngi defar réew mi. Vaal en Co. En Paul Enko